ci réew ak bitim réew waa li sarax la def ci xew-xewu làmb tey fekk fa Siteu ma fas yéene jàkkaarloog ci quatrième testam Siteu dana passé test ba waa wala déet laaj bu kenn mënta tontu la waaye waa Lansar rawatina coach Alioune Diop xam nañ la leen ko nar a ba ñu nga cay taxaw ñu ngi koy corriger moom coach Alioune Diop mu ne Siteu à trois erreurs à corriger ba ca njëkk il se met tout le temps à danser et à courir moom làmb ji yépp da koy fecc da koy daw moom du denc benn énergie naka la dugg ca làmb ja commencé naa nangi nangee ko fecc gàm bu tëggkat yi jàpp mu gunge leen ba ca daaneel ba bu noppee dukki dukki mel ni mool loolu ñun waa Lansar danañ ci taxaw ba mu set wecc beneen erreur ba mu ne Siteu a trop tendance à vouloir abréger ses moom arbitre day siffler rek mu bëgg a jeexal làmb ja moom bëggul round d'observation bëggul lu yàgg ku taxaw ci kanamam day yaakaar ne moo la mën waaye erreur yooyu yëpp danañ ko corriger balaa ñoo gisanteeg Papa Sow ñetti erreur yi muy daw bu bëri bi fecc bu bëri bi ak bu arbitre siffler mu yooru sa kaw jàpp ne moo la mën danañ consigne di staff fexe ba consigne yi ñu koy jox mu koy jëfee màggetu fecckat de mënta mu ñi sabar loolee daal mooy erreur yi nga xam ne bu ko Siteu kenn dootu ko mën ci làmb ji ki kenn mënagul daan depuis sept ans mooy Ama Baldé juróom-ñaari at moom sëll bu ndaw laalut suuf tegale victoire depuis ba ko guy gi daanee ba léegi Ama dafa yeewu xam yoon wa ca la jóge daan ama neex le mars daan Malick Niang le juin mu jóge fa dugg tentee dixième combat ba digganteem ak Papa la woon le février journal ba xamle ne bi adversaire yooyu jàllee ki nekk ci kanamam nekk ci xelam mooy Modou Lo Modou Lo pour freiner Ama Baldé dana ko freiner am du ko freiner combat bu taxaw ko teree leer leneen la nekk ci xelu amateur yi mooy revanche su ak Modou Anta juróom-ñeenti at ca ba ko Moussa daanee ba ren baa ngay doog a nekk ci xelu amateur ya boobu jaadu na ndax ñoom ñaar ñépp

lijjantee bi waaye toj na dëkk bi ka toj Joal Fadiouth le premier décembre mooy Yaxya Jóob Yékini moom njiital Faata production 3 millions de francs CFA la teg foofee ca Joal Fadiouth ndax rëg-rëg dana participer ci bile gala bu rëy loolu mooy laaj ba di bëre di daan di bégal waa Fadiouth ba bàyyi làmb doon promoteur continuer di bégal waa Fadiouth ay Yaxya Jóob Yékini moom Yaxya Jóob Yékini bu jógee ci bile gala fa seeni naa tëgg yeneen diggante Jackson Junior ak Pape Ndoye journal ba xam ne Baba Diaw patron Thiam production taxawal na bile face à samedi la ñu fas yéene amal face à face bu njëkk ba ca Gueule Tapée ca Gueule Tapée la Jackson Junior fas yéene tàppanteeg Pape Ndoye laataa combat baa ñëw jërë ngeen jëf mbokk yi li nekkoon li gën a fës ci iti yéenekaay bi ñu leen di jox dig ba ëllëg incha allah pour la deuxième édition du Festi Dakar, Rahu Prod vous offre une première mondiale. En exclusivité à Dakar, Gims et le samedi décembre, sur l'esplanade du Musée des Civilisations, réunis pour un moment d'exception.